주변은 좀 나. 주변은 그냥. 어. 근데 그게 그거는 좀 다시 다른 입장이고. 느낌이 그냥 안 되는 게 그렇죠. 그건 그건 그건 기대했었어요. 뭐 잘했어. 우선은 기한 선단은 이거를 하는 이거만 들어가 보니까 이게 그냥 안 된다. te yàlla suñu toll am duñu fàttali ko euh, yow euh, da ngaa niroog sëriñ Tuubaa ci sa wàllu melokaan maanaam man mi xamoon sëriñ Tuubaa daal su ma la gisee moom rek nga may fàttali ci sa melokaan ak sa jëmm waaye nee na li ci gën a doy waar it yemoo ci niru ko waaye dama gis ne danga ko niru jikko yi mën nañoo wax ne réalisé na ci loo xamante ne bii ñun bu ñu koy soxla sax dañuy jàpp ne ñu xajul ci dundu doomu aadama kon nag yàlla tax na sëñ Moustapha keroog ba mu njëkkee ñëw ci kër ga bi mu duggee ci buntu kër ga ndax kër ga amoon na ab étage escalier bi ma koy wàcc muy dugg ni ñuy daje dañoo daje mu siggi xool ma rek mu ne ma ñëw nga ma ne waaw ñëw naa mu ne waaw tigi noonu la yàlla wallaahi la asi wallaahi asi li may wax العالمين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الشيخ محمد المرتضى góor yàlla almujahidul akbar bàyyi talaa wala bàyyi murtada ci ñi ko gën a miin mooy jëmm joo xam ne dafa jox lépp yàlla suñu boroom jël ci moom lépp ay xalaatam ay mébétam ay nasam ay gis-gisam lépp mu delloo ko jëmmi suñu boroom jëmm joo xam ne suñu boroom daf ko waajal te xam ngeen waajtaay bokk na ci fi nit ki sosoo wala fi mu bokk kon ana fan la jëmm ju sell ji bokk Cheikh Mouhamadou Mouhamadou Moutala nag radiallahu an xam nañ ne mi ngi feeñe ci daarul alim al xabir ci kë daara yi sëñ daam Abdourahman Lo foofu la feeñe jamono ni nga xam ne ñu bare bari ci njabootu sëriñ Touba fa lañ feeñe ku ci mel ni Serigne Abdul Xaadir ak ñeneen ñu bare bari yàlla dogal itam euh, bi mu tollee ci war a jàng alquranul karim xëy na waajuru yi góor yi moom ñëpp xam nañ ko muy seex Ahmadou Bamba waaye wu jigéen wi itam nekkoon ku jaamu ko yàlla ku ragal yàlla ku ñëpp xam ci sellam bind juróomi kaamil te mi ngi mokkale alxuraan ci biir ëttu sëñ daam ci bi mu nekkee ci kilifteefu sëñ bi kon loolu yëpp di wane ne ittee soxna si ndax moo tax sëñ ma Lamine Diop ba mu fi génne àdduna mu doon ko melal di wax ne daanaka bu fekkee góor yàlla yi am na moom bokk na ca jigéen ñi nga xam ne mën nañ leen lim ci jigéen ñi nga xam ne ci jigéeni yàlla yi lañ bokk kon loolu di lu am am solo loo xam ne sëñ Modou Lamine Diop moo ko seereel wane ne itam bind na kaamil ku ne xam na ne itam euh, sëtu maam Samba ma la mi nga xam ne euh, ñëpp xam nañu taxawaayam ci mu mu bawoo kokki waaye itam amoon taxawaay bu am am solo ci war daal daanaka la fekk sëriñ bi jóge fi sëriñ Modou Moustapha moo leen jël yóbbu leen dëkk bi ñuy wax Tindodi di Husnul Maab ci sëñ Muxtaar Aane Lo moom la leen jébbaloon fa lañ doon jàngee alxuraanul karim bi mu jàngee ci sëñ Muxtaar Aane nee na dafaa def ay at nag te taxul xelam ubbi ko lool ba benn bis moom moo yóbbu boppam ci kër sëñ Daam Abdourahmane Lo ne daal ginnaaw ñi ko magoon ci njabootu sëñ bi fa lañ jàngee daal kon moom itam fa lay dem ginaaw gis seetu na ci boppam ne ak ubbi ku des moo a wax ci ñu boppam ne ma nag ba ma fa demee yàlla dafa def tawfiix daal daanaka amu fa at sax daal di wattu alxuraan karim kon loolu yitte la bi mu wattoo nag mu jël siwaat ci kilifteefu sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha tàmbali ko dalal xam-xam waaye booba xam nga sëñ Modou Moustapha mooy xalifa te yitte yi dana bari kon bu bëggee di leen jàngal xam nga du yomb lool nee na loolaa tax nag bu ko laajee sax nee na ma téere yu jëkk yëpp ba ci risaala moo leen ko jàngal ginnaaw bi sëñ Modou Lamine Diop nekkoon fi ñu dëkk bi ñuy wax Touba Kayal ci wetu Mbacké sëñ Modou Moussa sancoon dëkk booba mu dem sëñ Modou Moussa yóbbu sëñ Mourtala foofa ak soxna Fatou Tàkk ñoom muy jàng ci sëñ Modou Lamine booba sëñ Modou Lamine demagul njaareeb يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادت الشيخ محمد المرتضى ci wàllu waajtaay wala jaar-jaar ginnaaw bu mu tàmbalee alquranul karim am njàngam ci loxol cheikh mohamadul moustapha di magam nekkoon xalifa sëriñ tuuba cheikhuna ahmadul xadim ak jaaruwaay yemu ca jaar mooy jóge ci moom dem ci sëriñ daam abdourahman ginnaaw loolu cheikh mohamadul murtada la na dem sàkku ji xam-xam ci gànnaar loolu yépp nekk ak dogu ndax ku toll foofu àddina wuyu si la mbooloo wuyu si la am am wuyu si la te firnde la ci ne waruwaay amoon na ko muy oto jamono booba nga xam ne bari wutoon nit ñi wutal si ko mu bàyyi fa lépp laxasaayu dogu am gis-gis bu sori mel ne ba Seyxuna Ahmadul Xadim waajuram boo gisoon ba muy wax ne xaalu li yarkan li abwaabi salaatini mu wax ne moom leneen la gisoon mel ne loolu gis-gis boobu itam cheikh Mouhamadul Mourtada donn na ko ci cheikhuna Ahmadul Xadim noonee la la xasaayoo jëm gànnaar. ci biir loolu nag nee na booba daal bari na ñu ñu muy àndal ba tax na mujj na am oto boo xam ne ñu bare bari dañ ci ànd moom di ñëw di kii. ba ba mel ni daal xel mi mu ngi bëgg a ci wàllu njàng ba benn bis nag nee na mu fàttaliku lu ko Serigne Touba mosoon a mu daal di nee na xëy xëy rek benn fajar rek guddi xaaju guddi mu jóg daal ne daal day dem gànnaar. ab diir waaye la ko ci moom doole doon waaye delluwaat nañ laxasaat nañ benn bànneex jàng diggante sëriñam boobu nga xamante ne bii moom moo ko doon jàngati mooy Cheikh Sidiya Baba na ci moom ay seetlu yu bëree bëri moom gënoon a yitteel mu ne da daan def xalwat te ne bii waxtu jot na rek mu génne dañ ma la ba nit ñi sax jàpp ne dafa réer ndax kenn ku nekk xam na ne gànnaar day koy waaye nag day nekk ci barab soo ko gën a am solo nag ci gànnaar gi moom mooy ne nee ba foofu daal da daan def guddee mu jël ab deram dem ci àll bi di naafila fonkoon alxuraan lool di ko ka yi demee noonu tërbiye boppam daal ba tax na nee na foofu daal fu laa yégée ne nag bari na lu ma doon yëg ci sama bopp daal loo xam ne nii xëy na maanaam amu ci woon mbégte ci boppam yëg na ni daal am na lu ko suma borom defal foofu ba mu yëgal ko boppam te mel na ni itam loola la ko gën a firndeel mooy ba muy dëpp nag di di ñibbisi te dugg ci euh, looce bi ànd ak ki ko doon jàngal Euh, la ko defal ñetti bayit yu am am solo yoo xam ne daanaka tënk na lépp mu def ko mooy léegi ndax da ko taalifal da ko wax ne ko euh, yow euh, da ngaa niroog sëñ ci sa wàllu melokaan maanaam man mi xamoon sa Tuubaa daal su ma la gisee moom rek nga may fàttali ci sa melokaan ak sa jëmm waaye nee na li ci gën a doy waar it jëmmoo ci niru ko jëmm waaye dama gis ne danga ko niru jikko yi dem gis naa ne bëgg alxuraan bi ak bëgg julli ak jokk bokk ak fexe ba lu ñaaw nga sori ko lu araam nga sori ko nee na loolu daal ci li ma xamoon ci ku baax la te loolu xam naa ko ci yow nee na mu ñibbisee it Euh, daal mel na ni loolu mu diyaale woon sëñ bi daal jàpp na ne toog bokku ci mu jënoon day jël penku dem waaye nag bi mu demee ba Saalum lafa fekk taalibu Sëriñ Tuubaa bu baax bu ñuy wax sëñ Mor Xaris yi moom daal moo ko fexe ba téye ko fa ba mu bañ jàll foofu nag li mu doon wax ci gànnaar ci li mu doon tarbiyaa boppam mel na ni foofu nag fa la gën a fese ndax euh, ñi mu àndaloon ci ay taalibeem am na ci ku ma sa waxal ñu di ko wax sëriñ Moustapha Diop soxna mbay ma fekk ko fii ci yaraax ci waxtaan ak moom mu ma daal euh, sëriñ bi moom biñ bokkee nekk Saalum ku daa faral la def ay mbiri xar baax la nee na mu ne ma maag sa ku bëgg dafa nekkoon nag ku di mbokk suñu waajur sëriñ Moustapha waaye di xaritam mu ne ma am na bi sëriñ Moustapha Lo ñëw fii nu ciy waxtaan ma naa ko nun daal suñu waaj yi dafa mel dafa soppiku léegi bu njëkk daal yi mu doon def ak yi mu doon kii yëpp nee na sëñ Moustapha ne ko nag ndab nag bu feesee dootu yëngatu ndax boobu danaa jekki-jekki rek wax leen dara ku mel ni ku julli te jàpput te ànd ci mbooloo bi bu noppee mu ne la yu daal loolu nag laaj naa ko sëñ bi sax man it <laughs> bi ma ba ñu nekkee ci Rosso laaj naa ko nekk waaw Moustapha Soxna Mbaye doon wax ak man ba àgg ci loolu loolu nu mu demee nag mu xamal ma ne ma daal mu ne cell ba yàgg mu ne ma ne daal li am solo daal mooy nit daal fexe ba lislaamam ak imaanam ak islaam ak istaanam euh, aw yoon daal loolu moo war a gën a am solo yeneen ci des yëpp muy lu am solo loo xam ne it Sëriñ Tuubaa waxoon na ko nee na woon karaama bi gën a mag ci wàllu yi daal mooy fexe ba teg tànkam ci sunna bañ ko faa teggi nee na loolu moo solo kon loolu rek daanaka lay tontu ci tontom boobu kon ba mu nekkee foofa nag ak ku baax kooku moo waxoon Sëriñ Mor Xarit Si ba yàgg nag mu dara dellusiwaat euh, nga xam ne sëñ moo Xaar si ñëpp amal nañ ko njukkal ngir xëy na sëriñ bi mënoon naa dem booba rek ci ni ko gisee woon waaye comme moom taalib sëriñ Tuubaa bu mag la moo fexe fexe naxanteeg moom ba mu toog ba tey lépp lu ñu gis ci moom ci sëñ bi mel na ni su loolu amutoon mën naa am dara feneen lay doon waaye du doon fii kon nag bi mu dellusiwaatee Tuubaa tam wax na ma ne ma teewul dafa continuer waat delluwaat ci njàng ma rek waaw mu ne ma dem ci euh, sëñ Xasan Buso di doomi sëñ Mbàkke Buso ci Gédé di borom xam-xam bu ñëpp xam nee daana fa dem di fa jàng foofu nag euh, laaj naa ko yan téere sax la fa jàng mu xamal ma ne lawal ak saan yi di xalil doo fa la ko jànge loolu nag di lu am am solo loo xam ne njaboot sëriñ Touba gi ku mel ni sëriñ Souhaïbou ak sëriñ Abdou Khadim ñoo ñëpp seetlu nañ ko ci ñoom ak sëriñ Saar ñëpp nga xam ne dem nañ ba nekk mag ba doon kilifa sëriñ bi nekkatu fi ñoom ñu ne fii ñu di leen xoole sëñ bi ñu rëy ci bëti nit ñi lool waaye ñoom ñu am yitte ju ni xam ne euh, xam-xam mënta ak ci ku war a jiite njaboot ak ku war a am mission bu defar nit loolu moo tax ñoom daraja jooju ak cër bi leen nit ñi joxoon ak bi ñu leen doon xool teewul lépp lu ñu waroon mot lu ñu jàpp ne lu war a mottali seen taxawaay rek dañ koy wuti kon daanu jóge ci këram dem ba gene mooy fekk sëñ bi sëñ Assane dem jël fa bindam jël siwaat loolu di lu am am solo loo xam ne yaakaar naa ñu bari war nañ cee taxaw seetlu ci jullit yi ak ñi kilifa yi leneen li ci des itam nee na bi mu jógee ci yooyu nag ci la sant dëkkam bi nga xamante ne bii mooy Ndiotol Siam nga xamante ne bii sant na Ndiotol Siam lu jiitu ñu dem Ndiotol Siam ñu nekkoon Daaru Salaam Kawel parce que nekk na fa ab diir waaye ginnaaw bi nag la sant dëkkam bi nga xamante ne bii moom la ñu tuddee Ndiotol Siam dëkk bi nag yàlla dogal itam ne sant sant ko diine sant ko sunna li nga xamante ne bii mooy suñ dëkk bi fekk si foofu la ñu leen wax mooy dëkk bi la dëkk bi diine la dëkk bi islam waaye képp koo xamante ne bii lislaam na la boo fi nekk itam da nga doon nekk waa dëkk bi waaye itam la ngay séntu ci dëkk da ko fa am. ñun fa ñu bëree bëri nekk fa ñu dëkk bu am solo ñu daan fa wéetal boromam dafa jaamu yàlla dafa gis nekk fa ak biir dafa jaamu yàlla. yàlla bi nga xamante dëkk bi màgg na ba nit ñi fàttali fa ko fa ay tool yu mag tool yoo xamante ne bii at dañ ko fay bàyyal lépp loo xamante ne bii jógale ko muy indi ko di ko dajale ci yéeneen bi nga xamante ne bii moo nekk ci xolam ci waxuñu ko bi nga xamante ne bii am na lu mu ci dajale lu ci mag ñi nga xamante ne bii ñoom la nekk leen wax leen ne fas naa yu lëggéey yoon boroomam ci waaru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci biir waaru Seexuna Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu way jëm luñ fas yéene lëggéeyal boroom nag mooy dimbale jaam ndax moom gis na ne alxalqa kulluhum ayaalillah mbooleem li nekk lépp njabootu yàlla lañ suñu borom subhaanahu wa taala te bëgg na leen a dimbali gis na ne suñ fës yéene leen a dimbale mooy xamal leen ndax gis na ne nit ki lu gën ci dimbal ci moom mooy xamal ko kon nag kenn nga xamal nit ñi te nag nga waroon def nit ay daal te loolu ñu sëriñ bi dellu foote ci daaru salaam ak ci daaru alim al xabir daan koy def benn barab boo xamante ne bii dafa ne fas yéene taxawal daaraam bu njëkk li nga xamante ne bi ñëw ne daara alamul xabir ba rëdd ko ba rëdd daara ba taxawal daara li nga xam ne moom la bëgg mu nekk ñu fas yéene nag lu mu amati nag dëkk ba kon ku nekk xam na ne sëñ mu tubaab borom yëngutu la woon dëgg ñu ne ñun ñu ne yëngutoon ci wàllu mbay mi rek waaye day yëngutu itam nag ci ab defam ci di dem di toog ci nit ñi ci ab defam jënd na jaay na yëpp xam na Cheikh Amadou Moussa bi ñu jënd na jaay na sàmm na jënd na ndax amoon na fële ca Côte d'Ivoire ay tool boppam yoo xamante ne bii moo fa nekkoon tool yooyu la xam ne moom lañ fa daan béy mooy kafe ki ko ko joxoon mooy président réew mooy aussi boole man mii sama wajur ànd na ak moom trente neuf quarante quarante trois dem la nga xam ne moom lañ koy lépp rek dañ ko fas yéene def ci daaram bi sell bu bàyyi jooju nga xam ne moom la fas yéene taxawal foofu ci daaru salaam jëmm ju sell ji di Cheikh Mouhamadul Mourtada kenn mënta wax liggéeyam te tuddul li mu taxawal te mu am solo lool muy wàllu daara yi muy institut al yi ñu xamee al maahid al azhariya li dirasat al mu nekk loo xam ne daf ko taxawal mu révolutionne mu dundalaat njàngum xam-xam ginnaaw bi mu jaaree ci loo xam ne mënutoon a ñàkk te ba léegi taxawaayam mënta ñàkk muy jàngum daara Cheikh Mamadul Murtada ci gis-gisam bu sori gis ne kat warees naa mën a jàngee neneen itam dolli ko ci li fi amoon muy fexe ba taxawal ay école yoo xam ne dañuy jàng di jàll ay classe di defi examen di ami diplôme kon donte sax loola yombutoon ci njàlbeen waaye ci dogoom ak ci laxasaayoom lépp lu mu mën rekk mu joyal ko ci mu jëf ko ci ba école yooya mujj taxaw law ci bawol ak njaambur ak kajoor law réew mi yépp ba daj ba génn bitim réew jëm fu mel ne Gambie wala Cameroun wala Côte d'Ivoire ba jéggi sax continent yi dem ci yeneen barab. daara jooju taxawal daara bi nag yu bëree yi néew yi dem na ba yëkkati ko ngelaw ñëw daaneel nga defati ko ñu daaneel ko ban nga bañ xaddi ko yow ñëw daaneel ko nga xaddati ko ñu daaneel ko ba am ay mag yoo xam ne ñu ne woon fi moom sax mais ñoom ñu waxtaan ci seen biir leneen ñoom waxtaan ak seen ndax jàpp nañu liggéey bi nga xamante ne bii moom lay def xëy na dafa dëpp wuuteeg li nga xamante ne bii moom la euh, euh, euh, yoon yi di def wala bi nga xamante ne bii mooy bëgg-bëgg sëñ bi ba tax na jàpp nañ ne sëñ bi daf ko war a set kon ñëw waxtaan ci ak moom moom ñëwoon na ñaari muy rasuulakum akum kuréel yéen ne nag xam nga ne liggéey bi mu dëgmal yàlla borom bi subhaanahu wa taala la koy defal te am na ci ak dëgg moom loolu mooy benn beneen bi ci def mooy dëgg wu ci ñoom dëgg wu ci seen kaw loolu xëy na leeru leen war war na leen a leer ko ba tax na ba ñu waxee ba noppi ci wëlbati ko ngir wëlbati ko ci loolu ba mu leen tontu ba noppi ne leen ne suñu borom subhaanahu wa taala lii ak liggéeyam la te moo ko moom te xam naa ne lu mu jublu waaye nag damaa jëmutoon nag la mu waxoon moom borom bi subhaanahu wa taala ci téere bu tedd bi ma wara nag nuwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-juu'i wa naqsin min al-amwaali wal-anfusi wa bashiri wa bashiri s-saabiriin kon lii di daal liggéey bi da koy muñ waaye xam na ne bis dana ñëw liggéey bi dana taxaw bu xaw a tiis bari ay jafe-jafe waaye moom noonu la ko xamee moo tax mu tuddewoon ko sax jihaad jihaad nga xam ne ku ci nekk loolu loolu loolu la koy tuddee ba nga xam ne danga am yëg-yëg boobu waaye di ci dalal sa xel nag waxtu nekk itam di la yaakaaroo ba tax nga mën faa toog kon loolu liggéey la bu boo xam ne njàlbeen nga jafe na lool loolu itam ci lu ñu war a jàng la bokk ndax nee na cinquante sept la ko tàmbali waaye te boobu ay gablin rek lay lay jéem a waaye ba 74 lañ ko door a ubbi nga xam ne daal lay mel ni ti kon mu mat ñaar fukki at mënoo fexe ba sottal <laughs> fu nit ñi dugg nga xam ne am na sëriñ euh, jamono yoo xam ne sëriñ Abdul Ahad moo ci taxaw def jëwriñ sëñ Moustapha Bassirou ba liggéey bi àgg kon loolu yëpp di rek ne ab tàmbali day jafe waaye pas-pas moo ci am solo ndax tey ku ne xam na ne euh, daaro yooyu ni mu tasaaroo amul benn benn mbooloo wala wala wala bu yëngatu ci wàllu xam-xam boo xam ne ñiy jàng ci daara ji ak lim bi ñu toll ak ni mu tasaaroo ci réew mi ci ay ci ay barab am nga bu ñu toll kon loolu yëpp di wane liggéey bu yàlla nangu noonu la moom nag daana ko wax loolu wax ne liggéey bu yàlla nangu la kon loolu yëpp di lu am solo loo xam ne itam ñu war a jàng la sëriñ bi daal eh, xam-xam lu ko yitteeloon la mu def ci alalam def ci waxtu waxtoom def ci lépp nag bëgg yit ñi ko ñi ko it ñi ko xam ñi ko yittewoo lool bëgg leen jegeel leen ci boppam lool sagal leen suturaal leen bu baax a baax ba ku doon xool euh, ñi jàng ci beneen bët sax mujj nga euh, da am jafe-jafe ndax bu fekkee ku jàng mas jàng ba ñibbisi am lu ñu lay gisee am lu ñu lay tuumaal waaye boo ñëwee nag doomi Sëñ Tuubaa fi te taf la ci boppam warmaal la jox la cër ah ku amul pexe it xëy na dana noppi bokk waaye pexe amatu fa loolu yëpp nag ci li yi nit ñi ci jàng la ak liggéey ndax bari na ñoo xam ne xëy na su su fi nekkutoon ñu ba muy tuut ci yeneen la ñuy mujj ndax yooyu ma wax soo ñëwee bët bi ñu lay xool ak ni ñu lay gisee duñ la yaatal di di la wax lu tax soo muy tuut nga beru ji loolu lépp nag moom safaan bi la doon def mooy nu muy fexewaat ba nga delsi ci biir mbooloo mi ba mën leen jariñ loolu loolu loolu taxawaay bu am solo la boo xam ne warees na koy fàttaliku ci mbiram kon sëriñ bi noonu la def euh, taxawal ci biir réew mi ak ci bitim réew daara yu bare bare bare bari yoo xam ne tey bu ñuy wax njàngul islam ci Sénégal moo ci jiitu nekk ci kanam. li nga xamante ne bii ci jiitu loolu nag ba liggéey bi daa nag waaye bu ñu ko ubbee ba def ko daara xam-xam moom li mu nekk ci li nekk ci soixante-quinze liggéey ba daal taxaw ñu def premier directeur bi mu nekkoon Serigne Cheikh na Mbacke dañ seen euh, Habib Mbacke mu nekkoon imam yi Touba mu taxaw ci ab diir ba xamante ne bi njàng mi ñëw na soxla yi itam ngir ci modernisation maanaam mu gën a lëkkali ak jamono ba ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi bëggee mu am am ku ñu wax sëñ Mouhamadou Moustapha Aliou bu daan woon ba ñu dugg ci Cheikh Mouhamadou Mourtada sëriñ bi yàlla koy jël teg ko si bopp liggéey bi mu nekk directeur daara nekk nag ak diir diggante bi mu ko nekkee nag daa tax na loolu liggéey suñu sëriñ bi jógee ci loolu nag si bi mu jooju ba nga xamante ne bi taxawal ba tàmbalee am ay bànqaas si biir li nga xamante ne bi moo réew yaari lépp suñu sëriñ bi bi moom mooy Bambey ubbi fa la nga xamante ne bi mooy Kaolack li ci gën a naan ci daara jooju nag mooy ñu bëree bëri ci ñi nga xamante ne bii ñoo dugg ci daara jooju ay tëjur la dañuy dugg ci lislaam dugg ci daara waaye nag ñoo ci gën a naan yàlla def na tam mu yaat dëkk ñi nga xamante ne bii ñoo wër bàddee te ñu mën ñu bëree bëri mooy sàmm diine tumuranke woon fa lool ñu bëree bëri itam réere ko woon fa lool ñu bëri dugg ci lislaam dugg ci biir daara daara dama am lool fa tabarakallah yàlla dogal ngir ma yaatu sëriñ bi amaat ko beneen barab ñu gën a yaatu waare bi siiw yaatu mun nañ ko def loolu tamit fa tabaarakallah mun ñu ko dem ci dara coono boobu mooy addu bi la kon seen ak barab bi jaay nañ ko waaye rëcc nañ li taxoon ñu di te itam lépp loo xamante ne bi na ko ci ñu jënd ko ko yaakaar naa dañ ko ko a fay ndax laaj ñu ko jënd woon ñu dugal ko ko jëndaat ko ci moom waaye ci moom bëgg yore ay nit ñu ànd ñu bëri ñëw ba ci sëriñ bi ñu waxtaan ak moom waxtaan ak sëriñ bi ci li nga xamante ni bi moom lañ bëgg ci ak ni ñu ko bëgg a dollee li ñu ci defee ñu ko dugal ko lañ koy def bu bëggee sax mu ëpp loolu sëñ bi keroog ñun na mun boo xamante ni bi moo waral keroog ba ñëwoon ba ba dëndee barab bi ba ba keroog sëñ bi ndax li tax loolu ñii nga xamante ni bi ñoom moom la ñuy gaaral moom la ñu exposé ñu xaalis bu ñu ko bëggee a jënd moom suñ ko jaay dafa nekk njëkk parce que suñ ko jaay mu ne yàlla la ko jaay man hmm? yàlla la ko jëndal pour nga yàlla la ko jëndal rek dafa naa ne nit buñ ko fay nit bëgg yàlla dafa kon loolu ñoom yaakaar naa ne rëpp na seen loxo te foofu fi ñëwee mu doon nit ba ne li muy ñaan tey mooy ne sax bàcc ci loxoy lislaam te yaakaar naa ne loolu ak loolu ba ci mel nii Casamance kon dëkk bi ñu ko ubbee daara ji mooy Dindiane Dindiane kon ku nekk xam na ne la ëpp ci ña fa nekkoon ci jamono boobu ñëpp ay chrétien la ñu am ñoo xam ne ay animistes sëñ bi yàllaa ko fa wàllu ci tukki yooyu nga xamante ne bii moom la daan def ci Casamance sëñ bi mu nekk dafay dem mu doon cortège boo xamante ne bii bu mag lay doon kilifa yi diine yi ci bëri bëri di ànd ak moom di dem foofu ci tukki boobu ci biir tukki boobu ci la ko yàlla ubbi na dëkk boobu di gunóor ñun ñëwante mooy ànd bi moom la yàlla dogaloon mu nekk foofu daan ko man daal di tëj musuwaa man sëñ bi man maa nekkoon àdd bi fii di ñoon lii mooy programme bi yàlla def na ma ci dara bi boo xamante ne bi bu kawe ko suñ ñu teg ko fële tey jii bi damaa bëgg ñu dégg lu ci yow ànd ak yow ci gistaan bi nga xamante ni moom la sëñ bi am ci bëgg loolu ndax mu ko defee bëgg ko dam dal lu bëree bëri ñu ànd ak moom ñu ci waaye na ko ci gën a nekk kon gannaaw loolu mooy barab bi nga xamante ko moom ko dande woon moom ca Kolaar jaay sëriñ bi dañ jaay sëriñ bi sëriñ bi daal di koy def nekkoon daara ji gënoon mag ci daaray suñu mutuwaay yi nga xamante ne bii moom moo nekkoon ci jamono boobu nga xam ne boobu ki nga xamante ne bii moo fa nekkoon directeur école bi kenn jëloon ko mooy al Fancy Bodian Fancy Bodian moom tey jii ma wax yoon yi moom mooy imaamu raatib bi bu mag a mag la foofu tànk moom moom sëriñ jëwal daara bi tekk muy def di def ñu andi ay assistant maanaam ay mat ci masri yi maanaam ñoo xam ne ay assistant la ñoo xam ne dañoo jóge ci réewum Égypte réewum Égypte daara bi nag dafa nekk ñu université al Azhar li nga xamante ne moom lañ tuddee daara bi def seen ñëpp daa ay assistant yu ñëw bu ñëwee nag la daan tëddali ndaam moo ci daan am waaw bu ñëwee nag gannaaw ñoo yor école bi gën a mag ñoom itam dañ cee war a am seen liggéey ñëpp ci assistant yooyu ci professeur yu arabe yooyu nga xam ne moom la ko euh, université Al Azhar jot ñu ñëw foofu kon gannaaw bi sëñ bi ubbee foofu dañ ko tegaat ci daara yi ubbi mooy Al Azhar bu Thiès daara boobu itam nekkoon daara bu am solo muy kër goo xamante ne bii kër gu am solo la woon sëñ Bassirou Mbacke radiyallahu taala anhu daanoon magam bu xaritam bu fekkoon مولانا القرآن أولئك القوم لا يسعى جليسهم إذ يكسبون المدى fonkoon jëf la ku déggoon ni sëriñ Tuubaa yaree la muy liggéey ba bañ a sukkandiku ci kenn liggéey ba nekk gor liggéey ba ba nga xam ne doo tàllal sa loxo kenn moo tax Cheikh Mamadou Murtada teeloon a ràññeeku ci wàllu mbay ak yeneen yoo xam ne li ci am solo mooy lépp daf ko daan dooleele liggéeyu lislaam yi di ko ci kàttanal muy li mu daan junj rekk ci aaya boobu suñu borom di wax ci suratul anfal de wa ajju lahum mastataatum min quwatin wa min ribatil xayr loolu tax cheikh mahamadul murtada amoon ay tool ci réew mi ci barab yu wuute amoon ko sax fu génn réew mi fu mel ni Côte d'Ivoire xam ngeen ne toolu kafe yooyu nga xam ne daan na def lu baree bari ci liggéeyu daara yi Cheikh Mamadul Murtada bokk na ci wàllu liggéey lu mu taxawal muy lu jëm ci wàllu transport nga xam ne kaari tey wala biisu transport léegi la bari ba nit ñi miin ko waaye ba muy wàccee biisam yooya nga xam ne nit ñi dañ ko daan seetaan ndax xeeti biis yu mel noonu mësatoon a am ci réew mi waaye daan na wax ne lii yëpp li mu ci jublu rek mooy lislaam ak fësal tedd ngay lislaam loolee tey yaakaar naa ni ku ne mën na cee teg bët. mu doonoon ku am gis-gis nag ndax bi mu demee ba sori ci liggéeyu daara yi ba ci mujj gi jamono yi ñi nga xamee ne ñun ñu ngi cees nga xam ne bi ñu ñëwee te mu yóbbu nu Thiès muy fi njëkk a nekk ba ñu fa nekkee yàlla dogal booba école yi azar yëpp li ñuy wax euh, secondaire maanaam bag boobu kenn daawu ko fi am brevet rek la daay am foofa nag ñu jëkk fa tàmbali di fa def mm, bac bi nga xamee ne ay promotion génn na ñaar ba ñett mujj nag mu am xalaatum ne ñooñu daal kenn waru leen a bàyyi ñu dem kon nag léegi dafay xalaat taxawal mbirum transport te bu sañoon ñooñu noonu dañ la ci jël ñu soppi xar kanamu ni ñu gisewoon transport ñoom it ñu amaal mission ci biir di waar nit ñi bu waxtu julli jotee ñu taxaw ñu julli yooyu yëpp am na daal yu am am solo yoo xam ne foofu lu jar a taxaw la moom it ci ni mu ci xalaati woon ndax da ko lëkkaleeg li mu doon def rek waaw nga xam ne dafa bëgg ku jàng am loo jàpp ndax nee na boo amuloo jàpp xëy na loolu mën na indi ay jafe-jafe nga ne ci leneen moo tax mu ne ku xalaat nit ñi jàngit war nga leen xalaatal luñ jàpp bu noppee loolu moo andi xalaatu defar ay four defar ay ay transport ay oto booba day def ku ñu war a jël ci transport bi te mu nekk ñi nga xam ne mooy ñi jàng boobu mën lay bind lettre foofu ma bindal kooka lettre ñu door ko nangoo jël pour wane ne fii la jaaroon jàng na fi am na am na diplôme sàngam yooyu yëpp du yu am solo yoo xam ne am na lu mu defoon am na lu mu soppi woon ci xar garamu ñu baree bari itam wax dëgg yàlla am ci sutura te boobu réew mi dafa jafe lool ba da jàng ba noppi daanaka booba kenn jëlatul ci wàllu njàngale euh, at yooyu at yooyu xam ngeen mooy di tàmbale quatre-vingt-dix ba quatre ba quatre-vingt ba deux mille booba ñu baree bari jàng nañ fi waaye liñ doon jël ci jàngkat jàngalekat dafa tuuti ba tax na boobu bu defutoon noonu rek dana nekk jafe-jafe bu métti métti ci ñu doon jàng dana dana lool ñu baree bari itam waaye mu encouragé leen ci loolu ba ku ne bëgg am bag pour mën a dem liggéey ci liggéey yooyu yooyu di yu am am solo yoo xam ne philosophie bi mu am ci Euh, ndax euh, xëy na loolu sax xëy na ku laaj ñi nga xam ne ñoo yoroon wàllu transport bi ñoom ñoo ci gën a xam waaye ñoo it xëy na liñ ci xamoon rek moo di ne euh, maanaam bari na ay daara yoo xam ne ay sëñ daara yu ne woon fii yoo xam ne foofu lañ leen dañoo liggéey woon fii ay barab di fi jàngale moom moo leen daa fayal ci transport ba waaye am na ay imaam yoo xam ne dafa sàkkoon waxtu nekk ñu am luñ leen di jox bu weer dee ñu am mën caa jàpp ngir jàpp na ni ñi liggéeyal diine daal warees naa am lu mel ni salaire buñ leen gàddu yooyu yëpp da ci doon wane aw yoon rek pour ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey yooyu yëpp ñu war gën cee xalaat teg ay yoon yoo xam ne ñoo ñu taxaw diine danañ am euh, fu ñu leen mën a taxaw fuñ ñu leen mën a féete tamit fi wér foo xam ne euh, du doon xëy na rek nit koo xam ne mooy bu weer de mooy làmb poosam rek xool lu man def ko waaye mu am ab nos bu dëgër boo xam ne ci loolu lay tege loolu di lu am am solo te li ci gën a am solo ci lim doon defit mooy amu ci woon xaaj ak seen waaw am na dañ koy faral di wax koo xam mbooloo moo xam ne dañoo nekkoon ci fii ci Dakar amoon fii barab bu ñuy jàngale luyee ko ñu xëy benn bis ñu ne leen dañ leen di génne ndax dañoo bëgg jaay barab bi ñooñu yàlla dogal jëm ci sëñ Murtada ba mu demee mu jënd barab bi ba mu ko jëndee ba pare it bàyyi koog ñoom te ñooña xëy na duñu ay nit suuf yi ay nit yi geneen wàll lañ sax te loolu ñoom bind bu am solo la boo xam ne moom sëriñ Murtada def na ko muy lu mat a bàyyi xel muy ñi nga xam ne jàpp nañ ne xëy na am na ñu leen tuddee ne sax dañuy xeex mbirum euh, sëriñ waaye xam-xam bi nga xam ne rek ci lañ yëngatu moom ñëpp jàpp na leen njabootam ba tax na ba ñu amee jafe-jafe yooyu ba mu ñëwee euh, daf ko jënd te ma ci seen loxo ba nagani kon loolu yëpp di lu am solo yoo xam ne daal ay bind la yoo xam ne mënees na ko fàttaliku ci Serigne Mourtala radiyallahu an ci wàllu liggéey itam xam ngeen ne lu mel ne boulangerie Cheikh Mouhamadul Mourtada daan na ko taxawal lépp rek di sotteeku fa waat fi lépp rek di junj wala di jëmmal loolu ñu waxoon ne lépp teraangay lislaam li ciy fésal benn ci am lu ciy génnee loo xam ne dafay dooleel liggéeyu lislaam yi muy lu mel ne daara yeeg lu nu mel ñaareel ba itam képp koo xam ne génn na ci daara yooyu jàng lislaam kenn bañ koo gis di ko yërëm wala muy ñee koo xam ne ci meneen jàng la jàng Cheikh Mouhamadul Murtada bokk na ci li mu daan taxawal lu mel ne station service yi ak yeneen yu baree bari yu limoo limu yoo xam ne lépp rek daf ko daan liggéeyal lislaam bokk na ci yi ñu mën a tudd mooy loo xam ne ñu bari dañ ko daan gis mu koy bind wala ñu di ko bind ci otoom yi muy waqfun lillah fu di concept ci diine boo xam ne bu am solo la te ñu baree bari réere woon ko ci suñu réew yi mooy nga wut dara wala nga taxawal dara moo xam tool la nga samp entreprise wala bâtiment ma immeuble lu mu mën a doon nga ne lii kat la cay génnee dama ko def ci yoonu yàlla moomantuma ko njaboot moomantu ko nekkatul lu ñuy doon loolu yëpp Cheikh Mouhamadul Murtada xamee woon nañ ko ko. bi nga xamante ne yàlla dimbali na ko ci loolu ba mu yàgg ci noonu eh, ci la taxaw nag ay ay barab yaatal nag liggéey bi mu doon def yamatul nag ci mbay mi nga xamante ne mooy mbay mi aju ci nawet bi rek waaye dem ko rufaatal am fa suuf si yaatu yaatu. liggéey liggéey bu am solo la koy génne mu di ko def ci biir daara yi di ko ci dimbali loolu itam ñu ñëw fii ci jàmmaat ñu def ko ci suuf si yaatu yaatu mu di ko def liggéey bu am solo di liggéey boo xamante ne bii bokk na ca mooy wàllu maraîchage waaye nag bokk na ci itam nag li nga xamante ne bii moom mooy euh, euh, ay galaal ay ceeb yu bëree bëri mu di ko fa def yoo xamante ne la koy génne euh, da koy delluwaat ci biir liggéey loolu itam ñu dem xalaat nit jàpp na ko ci xalaat boobu mu taxawal ay puur yu bëree bëri ci biir Sénégal puur yooyu yaatu woon na lool mais ñëpp ñu tam nag la koy génne ñu organisé ko ba nga xamante ne bi day dugg ci biir daara yi waaye ñaari daara yëpp daara alquran yu karim yi nga xamante ne bi ay sëriñ daara yu ngëppite ñu di fa jàngale alquran te fépp boo xamante ne bi daara xam-xam am na fa jooyoon na fa daara daara alquran yooyu loolu nga xam ne ñoo koy liggéey ñëpp itam nag muy am loo xamante ne bii moom ak weer wu ne dana ko yëkkati di leen ko def man mii di wax ak yow ay at yu yàgg sëñ bi nga xam ne moom la ciy joxe man mii la koy teg sama loxo ma di ko bi di leen ko jox am na fi jamono boo xamante ne bii kon sëñ bi moom ak xel waaye ndimbal la lim leen di joxe am ci ñoo xamante ne ni dañoo taxaw ne ah ñu ne suñ bi ñëw ah dafa yéex a dafa gëj a ñëw dafa ba baal ñu aju ci moom ba ma woowee ba dama ko jox ba dina ba ma dina ko jox nee na ma boo demee nag nga leen xamal ne leen ñii ñu leen di jox ñun tool ma nga leen ko leeral ma dem ci barab la Dakar dem Touba ñu bëree bëri bu ma leen di jox dama leen koy leeral leeral leen ko bu baax a baax ba nga xamante ne yéen boo li ko nekk ci daara yi nga xamante ne bi moom la fekk rek waaye am nañu ci seen i daara ci seen i kër nekk fa ndimbal lii sëñ bi da ko daan àggale ci ñoom am na yoo xamante ne bi ay daara kaamil la nga xam ne dañ koy jàng alquranul karim ci ndigalul sëriñ Touba nam ko faxale woon ci jaaree nag feneen ak ci Touba ndimbal lii sëñ bi da ko daan yëkkati weer yi doo dinañ ko jox ci lépp nag ñu ngi jóge ci biir liggéey yooyu ñu doon liggéey te noonu la demee nag ba mu yàgg ñu xam nag nag euh, euh, euh, transport al azhar nag weesu kuur yi weesu tool yi gannaaw bi mu nekkee di di jiite ci njàng bi ñëw nag ci wàllu transport bi yàlla itam nag defal ko ci taw fee dëkk moo dem ci biir Sénégal ci dëkk yu mag yi kaam sëriñ bi xam nañ ko kaam sëriñ bi xam nañ ko xaar yooyu nag sëriñ bi da koo def lépp itam ngir rek ñu dundal liggéeyu bu seen bi nga xamante ne bi moom lay dundal ñu tudd ci al azhar ni naka lañ war mooy moom lañ tudd al mu doon liggéey bu mag a mag bu yaatoo yaatu boo xamante ne bii dafa naa ne du bëri ci ñu taxawal ay horaire léegi ci moom lañ ko rawee liggéey boobu mu doon liggéey bu yaatoo yaatu boo xam ne amul dëkk bu mag boo xamante ne bi horaire dafa déparé boo xamante ne moom la ñu wax alage transport jëm ci Ndakaar wala mu jëm ci Touba wala mu jëm Kaolack wala mu jëm Ndar ba yàlla dogal mu yaatal ko ba sax nag yóbbu ko ay Kédougou ay Bakel yóbbu ko itam ci nga xamante ne bii moom mooy Fuuta maanaam ay Matam ay Wuro Sédougou yooyu yëpp kaar dañuy déparé fa la di fa dem mu yaatu loolu yàlla defal ko ci tawfeex ay ñu bëree bëri itam nag ñu ko jëriñ ndax moom li ñuy def lépp njëriñu doomu aadama yi moo ko tax ndax lu mel noonu ku ko def mu war laa mën a andil bis bu nekk ñu yaatoo yaatu te saa yu nekk ñu fiy liggéey itam ñëw dina wax suñu toll ngay tëmbës ko sax ay kaar di leen dolli nga may ay moteur wala ñu may si ay pono wala leneen nga di ko jënd di ko doy ngir bëgg rek ñun nga gën cee mën a jëriñu waaye ngir bëgg itam nag liggéey bi ngay liggéey rek mu gën a kon loolu seen ko waaye ku ne xam na ne itam yemul ci biir réew mi bitim réew am na ay taxawaay yu am solo jot nañ fa ànd moom ci lu bari ci ay barab yu bari ci tukki yim daan def bitim réew waaye ku ne xam na ne euh, wàllu diine ak boole taalibe yi te boole nga tege ci diine am programme mu diine loolu moo gën a am solo ci lim doon def mooy lan. mooy li ci njëkk mooy nit ñi dañuy tumuraan kii nekk ci bitti ku nekk it yaa waxoon lu la fa yóbbu kon lu leen boole boo moytuwul du yomb lool ndax ku ne rek da ngay ñëw nekk sa wax di wut li nga la fi andi waaw waaye moom nag bi fa tàmbalee dem ñu di ko gis jëmm ji di ko jëmm joo xam ne day dalal xelu taalibe yu bari suñ ko gisee rek seen xel dafay dal seen yaakaar gën a dëgër waaye itam yemul ci loola mu di leen orienté itam di leen teg ci aw yoon wut leen fi barab su ngeen ko wutee ngeen di fa daje ngeen di fa jàng ngeen di fa jaamoo yàlla yooyu yëpp di yu am solo daal yoo xam ne xëy na moom yooyu yëpp rek doy na sëkk sax pour waxtaan ca muy wane ne daal sëñ bi e, taxawaayam taxawaay bu am am solo la. waxtaan ko def lenn kër Sëriñ Tuubaa daara mu al azhar ba fi may waxee yow nii daara ja mooy sansane foofu ci Côte d'Ivoire sëñ bi ubbi itam daara fële ci Cameroun al azhar bu am solo ubbi ko foofu sëñ bi ubbi daara al azhar itam fële ci nga xamante ne bii moom mooy Gàmbi gannaaw bi nga xamante ne bii ubbi na yooyu itam nag ci biir Afrique ci la ay daara itam nag ci biir Europe ak ci biir Europe mën nañoo wax ne daara yi ci gën a yaatu ñu ngi ci dëkk yi réew mi nga xam ne moom la ñu wax Italie ndax kenn ku nekk xam na ne sëñ Moustapha depuis mille neuf cent euh, euh, quatre-vingt-dix dëkk boobu ak mu nekk dana fay dem yàlla defal ko ci taw feex rek dafay taw feex itam ñoom fay fekk ñu nekk ci njabootu sëriñ Tuubaa di ay taalibe ñu dégg ndigal lool ci li nga xamante ne ndax lam leen gënal ko nee na képp koo xamante ne bii da ngay tuddee sëriñ Tuubaa ambassadeur nga war a nekk kon dëkk bii ngeen nekk mu ngeen ko bëggee taw feex na ngeen fekk ab bis xam ne leen nag booleeg ay borom xam-xam yoo xamante ne bi ñoo nekk ñoom dina ñenn ñi ñu doon tàmbal ñenn ñi ñu doon jàngal suñu yàgg loolu te ne man ba ubbi sa ay daara ci dëkk yooyu fépp suñ ko def kër Sëriñ Tuubaa def nañ fa daara ci wet sëñ bi Tuubaa teg na fa kenn koo xamante ne bii moo koy jàppale taalibe yi waaye itam ñi nga xamante ne bii ñoo jóge ci yeneen diine ci dugg ci lislaam ñooñu itam ñu di leen jàppale noonu la ko defee Italie noonu a ko defee France noonu la ko defee sax États-Unis d'Amérique boo demee États-Unis d'Amérique nag yàlla defal ko fa taw sax yoo xamante ne bi gën a réew la yoo xam ne yeneen ñi dëkk dañ ko fee rey mais may ko fa bisub sëñ Tuuba sëñ bi def ko bisub l'islam muy bu am solo ne bi ay pancarte yoo xamante ne bi foto Serigne Touba moo ci nekk ay aaya alquran ak ay xasaay di Serigne Touba kenn ku nekk ñëw di taxaw di ko seet di laaj ñii ñoo ñan ñëw na ñii ñoo njabootu Serigne Touba tey lu am solo te la ko yàlla ne tuub dugg ci lislaam di nekk ci biir doon ay mag ñi day seeni doom itam def seen mur mu indi leen fii ci Sénégal ñu leen jàngal alquran al karim lu bëree bëri jàng ko ba delluwaat kon sëñ bi defal na yàlla defal na ko tawfeex l'histoire boobu itam nag doomam di tedd yàlla ko yàlla defal seen gudd doon ko kattan doon ko ay may doon ko njëriñ ba déggoo yi way juró na woon def ko mooy sëñ Mamour Mbacke moom la fay taxaw gën koo yaata lool si may wax waxam yooyu ni ko ay dëkk yu bëree bëri yoo xamante ne bii romb na New York ak Washington rek léegi kon sëriñ bi taba ab liggéeyam yaatu na bëtt na frontière yi dénn na itam nag continent bi waaye dugg na ci yeneen continent yi itam comme ni ma la ko leeralee noonu sëñ bi tubaab yëngu tëgg ñi nga xamante ne bi dellu si na ngir bëgg itam nag liggéey yi nga xam ne moom la saxawal moom la saxal mu gën a sax gën a màgg yëmul rek ci àdduna yi nga xamante ne bi moom la ko taalibe sëñ tubaab di def saxal nag ne taalibe sëñ tubaab yëpp woon dañu jàpp ne sëñ tubaab seen sëriñ la moom itam nag am nañu ci woon xajjatoon li nga xam ne noonu la ko yàlla moom ci dëkk yi ñu wàcc di fa dem ay taalibe ñoo ci gën a ñëw ñoo xam ne ñoo ci jébbal ci moom lépp sëñ bi sëñ bi waaye nag am nañu cofeel ci moom ngoo xamante ne bi kër bu nekk daanaka mën naa laa wax ni tey jii ci kër gu mëri bi ñëw na kër boo fay dem te fekk fu sëñ sëñ Tuubaa te moo ko def moo ko jëf ak moom yàlla da ko dimbali woon gannaaw bi mu doonee sëñ ñëpp yàlla dimbali ko itam mu doon wëlla nit ñëpp te donc ko daan sàmm itam nag ndax kenn ci njabootu sëñ Tuubaa bi tuutiwul ci moom ba tax du yëkkati ak tànkam dikk ba fekk la fa nga nekk loolu defal na ko ñu gën a def muy taw foofu itam nag wax dëgg fu mu dem tey foofu la ko yëg ولا لسان بقدر wàllu jikko cheikh Mouhamadul Mourtada jikkoom mooy alquranul karim jikkoom mooy lislaam jikkoom mooy jikko yu rafet yi yonent bi sallallahu alayhi wa indi bi mu waxee ne innama bu aystu li utammima makaarimal axlaaq suñu borom day def ma yónni ngir ma mottali rafet rafet ci jikko yi jikkoom kon doon alquran mu di ko dund di ko jëmmal ba saa bu waxee sax waxam lu bari dafay nekk yàqu alquranul karim mu nekkoon jikkoy jullit jikko joo xam ne dafa làmb yërmande jikko joo xam ne dafay bàyyi xel lépp lu suñu borom màggal lépp luy war may suñu borom loolu moo doon jikkoy Cheikh Mouhamadou Mourtada ci jikko yi ko xamal itam mooy wàllu fonk mbokk ak di ko dox nag euh, dama ko ak moo xam nag mbokk gi mbokk deret la wala mbokk lislaam soo doon wax sëriñ boo xam ne li mu fanaan ci ay dëkk fanaan ko ci ay néeg néegu jàmbur yaa ragal naa amul amul amul sëriñ bu bu bu def lu mel noonu kenn ku ne mën nga ne ah sama baay sàngam sama nijaay sàngam sama maam sàngam mas naa fanaan këram mas naa fanaan ci néegam loolu yëpp nag ku ne xam na ne te léeg mu doon néeg bu doy waar nag sax waaw léeg-léeg euh, daana faral di wax suñu masaa ànd ak moom ne ci tukki yi léeg-léeg ñi di xëccu euh, chambre yi hôtel yi waaw mu waree nag ñun sax daal euh, fanaan nañ ci néeg boo xam ne daanaka amul kubéer wala amul nangam amul buntu daal maanaam yooyu yëpp wax dëgg yàlla di yu am am solo mu la nga xam ne yaakaar naa ne itam ci li dundal diine ji di dundal bokk gi loolu ci la bokk ba tax na ci liñ ko war a raj ci moom ci la bokk mooy xàmmewu ci ku am ak ku amut ak euh, ku ñuy tuddee ku woyof ak yooyu yëpp ku nekk rek mën naa fanaan sa sa néeg te li ma wax nii ku ko dégg ku nekk da nga sa xel dana dem ci néeg bu mas a fanaan boo xam ne wala buñ la wax boo xam ne ku ne xam na ne ku doon wut wërsëg doo ko wuti ku doon wut dara jo doo fa dem waaye ku ñu xamoon la itam ci wàllu euh, maanaam wàllu tabe waaw ndax daana ñu bare bari xam nañ ko moo tax fu nekk ma masaa nekk day fees del ndax kenn ku nekk euh, boo ñëwee dana la jox jox dara ba pare boo moytul mu diggaat la ne la fekk ma barab sàngam su ko defee nag loolu moo tax mbooloo mi dafay bari ñi ñi jox na ne fekk leen ma barab sàngam ñu paasaat fekk ko fa ñii ci des itam am nañ seen soxla ñu yëkk ñoo yëpp dajaloo fa. bu demee ba jàng alxuraan ba xol bi sedd guy nga xam ne tudd na yàlla tuddul yàlla bu joxe waa salaatu ala nabi yooyu mu daan joxe joxe ayatul kursi yooyu mu daan joxe joxe suratul ixlaas yooyu mu daan joxe ba mu wóor ko ne lu néew néew rek junni nit dina ko def nga xam ne fokk ay dox sax dina wàcce ci kaw dal ci suuf foofa fok léeg-léeg mu mosle ah tur sax dañ ko fay indaale di ko won tur wi wet gu mu féete daanaka day mel ni day xaw a dëng jëm ca koo wet bu nekkee ci ginnaaw gi day jaaxaan yor jukki bi bu nekkee ci wetu ndeyjoor mu tëdd wetam ndeyjoor gi fu mu nekk day diis loola bokkan na ci yan ci waaye foofu dees fi dugg ndax day xam ni ci foofu daal ay denc la denc denc ay dencam nag wala denc sëñ bi mën na noo yem ci na xam xam naa daal ku tabee ngoog ku bokk ku ay bokkam bëgg ngoog ku bëgg ay bokkam ngoog ku nooy ay waxa ngoog ku lewata ngoog waaye ko diis gan ci biir lépp lu yàlla bañ bañ bañ na ko dafa nangul magam yi fi nekkoon waaye kon mu taal jaar juj saayir ci atte yi ñuy te atte yooyu du atte yoo xam ne daa tënku ci lislaam mbaa ci hadiis gis ngeen la muy bind ca oto ba waa ahib doo lahum maastatan fa min xubatin amin ribaati xayri ak ak topp te noonu mu defit xam nga moom wax ci moom li tax mu jafe mooy ñoom man dama leen a boole te doona sa lépp yàlla moom laa gis mu def ko teewul ñe ñi wax ñi waxut baat bi ñu dégg koy kenn bàyyiwu fi lenn lu ñu lay doon a yow xanaa alquran muy kamsil kitaabu wala hadis wala adab laa jam fi datin wala jam saab ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk ñoo bokk wutul ñoo bokk melo ñoo bokk yërmande Serigne Mourtada radiyallahu anhu bis bi mu gën a bëgg nga xam ne soo ñëwee da koy fekk mu bëgg mu wóor na tey bëgg na mooy bis boo xam ne daal danga yëg ne naafile yi mu war a def yëpp def na ko jàng na alxuraan yi mu war a jàng def naafile yi mu war a def waaye yàlla dogal itam nag cartable fees na dell xaalis su boobaa nag ñuy nit ñi rang di xëccoo ku ne muy bind sek fii di joxe bis boobu moom mooy jàpp naa ne ku xam Serigne Mourtada bis bi gën a doon bis mbégte ci moom mooy bis bu mel noonu loolu nag defe naa ne wane na ne ci kon wàllu la ci jiitu ci jikko yi may yëpp nag mooy jikko yi jaamu yàlla waaw di ko dee julli ñépp xam nañ julleem waaw julli gu yàgg lool teewlu ko teeylu ko ba ñu baree bari duñ ca sawar a ànd ndax bëgg ko waaw ni ñenn ñi niñ baaxoo jullee waaw bu ko defee ni ko sëñ bi doon waxee nga xam ne dañ koy cof rek mel ni kuy gës waaw te ku ànd ak moom nag moom doo mën a def noonu moo tax ñu bari daawuñ taamu ànd ak moom ci julli eh, loolu bokk na ci ni muy joxe àqam yooyu waaye bokk na ci itam li ñu xamoon ci moom mooy sunna yu bari yoo xam ne daf koy toppatoo te bokk na ci mooy li ñuy wax i'tikaaf te mooy fukki fan yu mujj ci weeru eh, koor gi Euh, bokk na ci li ñu xamoon ci moom bokk na ci ñu daan dundal sundal soosu nga xam ne fu mu toll waxtu bisi boobu moom yooyu fukki fan yooyu moom da koy dugg def itikaaf ni mu nekkee sunna mu nekk lu am am solo ba tax na daal ku bëgg fonkoon sunna la ku fonkoon jaamu yàlla di ko te di ko defe defin wu teey te te te ànd ak ak dal waaw su ko defee nag noonu ñu waxee daal ay diggante jaamu yàlla ak yittewoo mbiri mi dee fi loolu daal ci gàttal bokk na ci ay mbiram yoo xam ne ku ko xam ci nga ko xamee ci wàllu jikko yi